waaw bis bi li ko waral am na solo dañoo toog waxtaan ne ah xalifa yàgg na prison xalifa nag début bi dañu waxoon ne otage euh, maanaam moom prisonnier politique la waaye prisonnier politique nag léegi romb nañ ko léegi ñu ngi ci otage politique ndax xalifa député la xalifa dafa am immunité parlementaire constitution moo ne moo ko conféré ne nit mënta nekk député de un nga nekk prison de deux nga ñu yaa ngi yore sa immunité parlementaire nga nekk prison loolu constitution moo ko ko may du kenn constitution ni mu mayee ne président de la république prérogative yu mu am yëpp noonu la mayee le député prérogative am donc xalifa mënta nekk le député maire en prison loolu moom mooy li ëpp maanaam mooy karaw bi nga xam ne ne moo yàq soow mi te karaw boobu nag il faut ñu seppi ko ci soow mi un député maire sa place c'est pas en prison loolu moo tax ñu tànn Thiès ne nañu ñëw fii Thiès ñu woo suñu département yi ñu ñëw ñu waxtaan xool nu ñuy def ba xalifa naka lañ koy génnewee ndax du toog Dakar rek di wax di lutter Dakar rek moo koy génne parce que xalifa nekkul kese Dakar xalifa fépp la nekk. kon nag pour loolu nag il faut ñu dem ci sunu ay base ñëw fii am na ñu jóge ci région yëpp ci département yëpp ñu ngi fi tey ñu def journée d'étude pour xool loolu naka lañ ciy taxawee ah ci région yëpp ci département yëpp ñëpp a war a taxaw pour que xalifa mu génn ci ni mu gën a gaawee. ni mu gën a gaawee parce que def na 7 mois léegi mu def 8 mois te yooyu moom maanaam mooy mooy deadline amul leneen duñ ci yokk leneen te lool na pour ñu atteindre ko il faut que suñu département yëpp engagé wu ci loolu leneen li aussi dañu ñëw fii pour waxtaan naka la ñuy structurer suñu bopp naka la ñuy taxawee ak yooyu ci politique ak ci développement parce que ñun li ñuy def du politique kese dañuy def développement politique ndax wax nañ fi suñu ay groupement de femmes yoo xam ne ñu ngi ko yor ci biir jigéen ñi di ci liggéey ñu leen di professionnaliser ci biir donc def politique kese passé na ah li si des nag ah ñu ngi fi tey journée bi yëpp incha allah dinañ def document après jébbal ko ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci suñu biir parti ci maanaam parti socialiste de valeurs mais dinañ ko jébbal ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo ànd ak Khalifa Sall dinañ ko fii nga xam ne ni suñu monsieur le maire mii nga xam ne ni ñoom tey ñoo ñu jàppale ak ñëpp ñu waa PDS ak waa Manko taxawu Sénégal waa initiative 2017 tey ñoo ñoo ànd ak ñun ak ñi nga xam ne ñoo ñànk ñànk fal xalifa Sall waa fal xalifa Sall Thiès ànd ak ñun ñun ñëpp ñu taxaw pour ñu libérer suñu otage politique ak yeneen perspective yoo xam ne ni dinañ ko xalaat ëllëg ak évaluer suñu ay élection moo ñu tax a jóg. lan ngay wax ñi euh, ci mbedd waaw xam nga xeex nag même bu dee ci mbedd mbaa ci kaw mbaa feneen xeex dañ koy waxtaane dañ koy diisoo te xeex bi nag du mbirum dakaar kese. il faut fépp la fépp la loolu moo tax ñu tànn ñëw Thiès tey beneen yoon dinañ dem feneen waaye bii moom dañuy concentré wu naka la ñuy def partout au Sénégal nu ñuy def ba libéré Khalifa Sall. Euh, ci wàllu woowu tamit euh, parti socialiste defe naa ne ñu dañ koy génn ci parti bi lan nga ciy xalaat. waaw loolu moom lu doy doy doy waar la lu doy waar la loolu xam nga li ñuy wax iñaan ak iñati fa la yem soxor fa la yem parce que quand même Khalifa Sall du n'importe qui dans le parti socialiste. Khalifa Sall mooy secrétaire à la vie du parti Khalifa Sall bokkoon na MJPS ba muy jeex ñoom ci la ñu ñëw mu jóge MJPS mu nekk responsable national MJ euh, MNGS. MGS après mu ñëw ci ñoom Pape Babacar Mbaye mu nekk MNGS Khalifa moomu mu nekk secrétaire à la vie politique Khalifa moomu la Abdou Diouf woowoon. ne ko Tanor moom laay def premier secrétaire du parti socialiste ci congrès bii di ñëw 96. dama bëgg nga jàppale ko mu am base mu ne Tanor Khalifa Sall mii mooy avenir u parti socialiste kon tey Ousmane Tanor Dieng bu nemee bu nekk secrétaire général parti socialiste ba taxaw ne Khalifa boobu lay dàq kon loolu lu muy nuru waaye ñun nag et puis bi gën a grave mooy ne Khalifa mu ngi prison prison na kenn ñaanalu ko sa sa sa noonu te ñëpp xam nañ ni mu duggee Khalifa am na fi ay dëj am nekk na fi prison ci ñoo xam ne man de man man personnellement man man amal nañ ma parce que man xalifa wax na ma lu ne lu ne saay bu ma waxaan affaire u Tanor mbaa wax wax bu ñagas ci Ousmane Tanor Dieng dina ma ci mere ay weer te loolu ñëpp xam nañ ko képp kuy ànd ak Khalifa Sall xam nañ ne saay bu ma tuddaan Ousmane Tanor Dieng dina ma ci mere ay weer dina ma ci wax lu ne dinaa daw daw daw du ma nangu dajeeg moom mukk ay weer weer tant que woowu ma ne ma baal naa la kon kooku tey moo ko tëj moo ko moo moo taxaw fi ne da koy dàq seetiwu ko prison de te nit nag ak lu mu munta nekk ak foo boo àndoon ak Macky Sall sax Macky Sall mais du la mere boo demee seeti sa camarade Macky au contraire da lay boo demee seeti sa camarade parce que nit doo ànd moom tey ëllëg ngay def di ko def lii kon ëllëg dinañ def Macky lu gën a garaaw loolu waaye kooku xam na dina ko xam incha allah beneen bi mooy président Macky Sall 2012 ñun ñëpp ñoo ànd ci Benno Bokk Yaakaar man kenn du ma ko nettali parce que man maay chef de cabinet Khalifa Sall xam naa Khalifa lan la def ci campagne yu Dakar au deuxième tour ci législative 2012 lan la ci Khalifa def lan la ci xalifa def laa la wax en terme de moyen pour que ñun ñi nga xam ne ni ñoo doon campagne Dakar pour ñu gagné 2012. bu ñu waxaan sax dara président Macky Sall di ko bind ci ay journaux xalifa def ñu daan mere ne coalition yéen xamoo leen ko xamoo leen ko kii mu ngi door a ñëw dañ ko may chance kooku tey ah moo ko tëj. gis ngeen àdduna mi mu demee doy na waar waaye kooku moo ko tëj te défendre na ko fu ne te kenn mësu koo dégg mu wax nit ñi ñoo ko ñoo wax ne mooy nekk mooy seen candidat Khalifa kenn déggu ko bañ nañ ko sa sénégalais yi dañuy wax ne dafa tàppet dafa leneen kon ay ambition moo ko dugal prison waaye tey nag lu ñu mun mënta nangu mënta nangu mooy ne ab député yore immunité parlementaire ñu ne dañ koy bàyyi prison loolu moom kenn du ko nangu ci àdduna ñoom ñoo ñu ànd ak président Macky Sall sax ñu baree baree bare ñu ngi ci am karaw bu weex parce que loolu mënta nekk Abdou Diouf yéegu euh, c'est encore pire parce que quand ce parti là c'est le parti de Senghor le parti de Babacar Ba de Aboubakry Kane et de tant d'autres de Mame Koutman Toulaye Guène qui était de Thiès le parti de de Aram Diène et de tant d'autres kon ne va pas accepter pour un rien vous vous rendez compte tous ces gens qu'on va renvoyer

Et aujourd'hui, s'il se permet de dire qu'il va renvoyer Khalifa Sall et compagnie, moi je pense que c'est très méchant. Mais on ne va pas se laisser faire. Euh, waaw man man doomu Abdou Diouf la Sénégal yëpp xam nañ ko dama bëgg Abdou Diouf sama xol sama àdduna yëpp moom bokk na ci samay référence euh, bi moom moo ma jëlee woon Kolda ma amee fukki at ak ñaar indi ma Dakar ma war a dem New York représenter tous les enfants du Sénégal mu yóbbu ma Kër Ndioro Ndiaye ma nekkoon euh, Mariama Ba mais gis nga wax dëgg ci la politique bi lu ko yàq mooy ne li ñu xaj ñoom xalifa di def naan nañu raay raay dafa jeex ñun kenn jàngaluñu raay kenn jàngaluñu am na yoo xam ne nag ala kulli haalin du lu ñuy wax ñun xam nañ ko mais am na yoo xam ne kenn mënu koo noppe man de man sama xol naqari na li tax président Abdou Diouf ba léegi waxagul waxuma mun naa moom ak Khalifa Sall wax nañ mais ci mbiram bi sénégalais yi xaar nañ ko ci bataay looloy dëgg gi. ku ko ñeme wax ko nañ ko waxta dee man nag maa koy waxta dee mooy ne sénégalais yëpp ñu ngi xaar waxam ci kaw ci mbirum xalifa bii ñu dugal prison te mu nekk maire waaye li ci gën a metti nag xalifa euh, président Abdou Diouf mii nga xam ne ni état de droit rek moom la ñu déggee ñun moom la ñu daan déggee état de droit wax na ko ba tàyyi moo ñu jàngal lan mooy état de droit moo jàngal xalifa Sall lan mooy état de droit ab député bu am immunité parlementaire place am du prison kon moom war na ci wax parce que xalifa njabootam la ñun ay njabootam lañu kon war nañu ci seet leneen li mooy suñu parti bi ni muy doxee nii même bu dee moom bàyyi na mais quand même parti boo xam ne ni jox na la nu ne nga nekk ci président pendant vingt ans même boo ci amoon benn xarit sax war nga ci taxaw sénégalais yëpp dégg la parce que ñëpp xamoon nañ parti socialiste fi mu tegoon Abdou Diouf ak man man de man personnellement fi ma ko teg ba tey fi ma ko tegoon démb fa laa ko fa teg mais lii dama koy wax mu dee silence am c'est pesant te neexul li ñëpp di wax ci suuf na moom laa wax ci kaw. waaw loolu moom gis nañ ko waaye ñun duñ ko seetaan parce que Khalifa ñu ak moom ñoo bokk moom peut-être seen génération ñun suñu génération moo ci topp. kon ñii ñëpp duñu bàyyi loolu mun a xasaay ñii ñëpp ak xalifa ñoo bokk génération mais duñu bàyyi kenn rey suñu parti pour pour beneen parti wala beneen beneen nit et puis sax ñooñu sax ñuy àndal je suis que dina am nu leen xoolee parce que nit doo ànd ak nit mu am xaritam benn bakkan te parce que ñu ngi ànd nga ne yow sa xarit bee di nga gis nit di ko rey nga ne yow da ngay jàppale ñooñu rey ko ñi ngay àndal sa dootuñ la gëmati jàpp naa ne sa président Macky Sall sa dina leen xoolee bët dina am nu mu leen xoolee parce que nit doo bàyyi sa xarit mbaa sa rakk bi nga bokkal ndey ak baay dem ànd ak keneen ne sa rakk ndey ak baay dinañ ko rey ngay toog di seetaan di ànd ak kooku noppi kooku dina xam ne ni dina am lu mu la moytoo kon ñoom nañu xam ne ne waa Benno Bokk Yaakaar bàyyi leen xel parce que li ñuy def lu garaaw a garaaw Euh, je m'appelle Aminata Diallo, ancienne députée euh, de la 12e législature. Je suis la coordinatrice du mouvement Fal Khalifa Sall et coordinatrice du réseau des femmes solidaires pour un développement durable. Et voilà, et le combat pour la libération, disons, euh, le de Khalifa Sall, la vitesse est doublée aujourd'hui. Vous, la libération, vous êtes à l'heure de Fall. Expliquez-nous un Alors, notre mouvement Fal Khalifa Sall, dont je suis la coordinatrice, nous avons... Euh, à par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire euh, l'incarcération ou la prise d'otage euh, de notre député maire Khalifa Sall, nous avons décidé de nous lever et d'aller vers les régions, d'aller vers nos bases pour voir comment travailler ensemble pour faire libérer immédiatement Khalifa Sall. C'est pourquoi nous avons choisi pour notre première station ici, Thiès, pour venir ici et demander à tous nos responsables euh, départementaux euh, des autres régions de venir nous rencontrer ici à Thiès, faire une journée d'études euh, et voir comment, quelle stratégie de lutte euh, pour libérer, faire libérer notre otage, le maire de, le, le député maire de Dakar, Khalifa Sall, et comment continuer, comment structurer notre mouvement par rapport à la nouvelle configuration politico-sociale du pays et quelles sont les, euh, les évaluations et stratégies, que nous, les perspectives que nous allons mettre en place. Et nous allons aussi évaluer ces, élec euh, ces élections législatives passées euh, quand Khalifa Sall était en prison avec tous nos, euh, nos alliés. Et euh, aujourd'hui, nous sommes en compagnie du maire, du, de l'adjoint au maire, M. Sankaré, qui est membre du parti Réumi ici à Thiès, qui a bien voulu, et tous les autres partis membres de Manco Tahou Sénégal les partis membres de Initiative 2017 Thiès qui ont bien voulu accompagner euh, du PDS aussi. Il les responsables des jeunes du bien voulu nous accompagner dans cette activité, euh, accompagnés du vice de Fall Khalifa Sall qui est un responsable de Euh, monsieur Mamadou Traoré ici et tous les responsables de Fall Khalifa Sall Thiès et dans toutes les autres régions et nous venons ici aujourd'hui pour discuter comment faire pour libérer Khalifa Khalifa Sall le député maire l'otage politique au moment où certains pensent que le débat, le combat devrait être dans la rue Voilà, alors un combat dans la rue ou autre chose, il faut l'organiser, il faut réfléchir ensemble comment faire. Alors nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire libérer euh, notre otage politique parce que quand même, avant, euh, on parlait d'otage politique, on parlait euh, d'un prisonnier politique, maintenant c'est un otage parce que c'est un député qui a une immunité parlementaire. Ça, pas justifiable en matière de droit Nous, en matière de droits de l'homme, ça c'est une, ça c'est une, euh, on a carrément bafoué un des droits d'une des personnalités les plus importantes du Sénégal, parce que c'est le maire de Dakar, avec toutes les, euh, euh, euh, avec tous les postes qu'il a au niveau international et tout, je crois que le, la place du maire de Dakar, c'est pas en prison, mais la place d'un député, c'est pas en prison, c'est au Parlement. Alors aujourd'hui, nous on sent que le vote des des militants ou électeurs de Manko Taha au Sénégal ont été confisqués en emprisonnant, en continuant à emprisonner nos députés. C'est le vote des électeurs de Manko Taxawu Sénégal qui ont été euh, euh, qui ont été confisqués et je trouve que ça ce n'est pas la constitution ne le, ne le permet à personne même au président de la République alors aujourd'hui c'est une défense des libertés euh, que nous sommes en train de euh, de prôner. Il semble s'envenimer pour lui euh, quand le parti a décidé de le renvoyer euh, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là c'est encore plus grave mais on va se battre hein. Ceux-là qui sont qui ont dit qu'ils vont nous renvoyer du Parti socialiste, surtout Khalifa Sall, je trouve que, un, c'est méchant, c'est très très méchant, parce que quand même un camarade qui est en prison, qui a tout donné pour son parti,

mettre dehors ou qui va l'exclure du parti, vous vous rendez compte, s'il n'était pas en prison, il n'y a pas de souci. On peut se battre, mais quelqu'un quand même qui est en prison, mais nous on n'est pas en prison, on va se, battre. On va, se tuer à la maison du parti, je vous dis. En tout cas, c'est le Dembadjer. On ne laissera rien, Parce que ce parti-là, nous on a donné des cartes, on a payé une carte à 200 francs. Nous, pendant tout, ans, on a donné tous les mois francs en tant que député. on s'est donné corps et âme pour ce parti. Ce parti nous a tout donné. Alors là, on ne laissera pas pour, pour je ne sais pas, pour des postes coup pour les beaux yeux de Benno Bokk Yaakaar pour que ce parti-là soit bazardé au nom de Benno Bokk ou, au nom de de, euh, que ce soit le HCCT ou d'autres postes que nos camarades veulent avoir nous nous sommes les héritiers de Senghor s'ils ont oublié Senghor s'ils ont oublié tous ceux qui là qui tous ceux ont fondé le parti c'est leur problème nous on n'a pas oublié Senghor on n'a pas oublié euh, tous ceux qui ont fondé le parti nous sommes des socialistes nous restons socialistes nous demeurons socialistes camarades qui vont nous l'empêcher. Le silence d'Abdou Diouf euh, vous inquiète un peu? Oui, euh, le silence, euh, moi je suis dioufiste, je suis dioufiste, je suis khalifiste. J'ai été à l'âge de 12 ans, c'est le président Abdou Diouf qui m'a amené à Dakar en partant pour le premier sommet mondial de l'enfance. J'ai été pupille de la nation. J'adore le président Abdou Diouf, mais je suis jeune, je dis ce que j'ai dans le cœur. Moi, ça me c'est pesant son son silence. Je pense qu'il devrait parce que quelqu'un qui a été votre ministre votre ministre de la République, quelqu'un qui a été votre, le responsable des jeunes de votre parti, quand même s'il a des problèmes, alors que vous, vous avez de très bonnes relations avec le président Macky Sall, ben, il aurait pu faire quelque chose. Je suis sûre que s'il avait demandé au président à, à Macky Sall euh, de le laisser tomber, il l'aurait fait. Donc son silence, moi je pense qu'il est pesant. Et par rapport à la situation du parti aussi, moi je pense que le président Abdou Diouf devrait agir, même s'il est parti en écrivant une lettre pour dire qu'il démissionne. Mais ce parti-là, quand même, lui avait tout donné. Donc je ne jette pas l'anathème sur lui, mais je dis ce que je pense. Et cet homme-là, moi, je l'adule. Abdou Diouf, je l'adule. Et tous les jours, tous ceux qui sont qui m'accompagnent savent que moi j'adule cet homme, j'aime cet homme. Alors, vous vous rendez compte, moi, une Dioufiste comme ça, quelqu'un qui parle tout le temps d'Abdou dans la presse et partout, si Abdou n'en parle pas, j'ai le plein droit de lui dire, mais monsieur le président, mais ce serait bien d'en parler au nom de tout ce que Khalifa a représenté pour le parti. Et Khalifa, c'est notre papa, et vous aussi, vous êtes